bi nga xamante ni war nañ def en sorte que réew Afrique yi dem ba am une indépendance ci lu mel noonu rappelé na également la nga xamee ni que moo fi awoon ci période pandémie bi mm-hmm. gis nañ ni nañu daan jotee vaccin yi des fois daan na yéex yéex mm-hmm. wala dañ ko daan war a amee ci ab lim mm-hmm. daawut demee noonu donc nag mu indiloon ñu ay jafe-jafe des fois sax daan nañu importer ay vaccin yoo xamante ni dawuloon am conformité ak euh, ni système climatique bi tëddee fii. Mhm. donc daal jàpp naa ni euh, yëkkati na fa ay kàddu yu am solo yu ama am solo te avant muy dem France itam boo xoolee visite officielle yi fii la ko tàmbalee. ci mhm. sous-région bi ci Afrique. donc mu mel ni jàpp ni am na mission boo xamante ni moom la doon ndox ci déenu Afrique bi entre yenn réew yi nga xamante ni dañoo nekk ci monde Sahel bi. ak CEDEAO parce que jàpp nañ ni aujourd'hui tey Afrique c'est une Afrique divisée gis nañ le monde Sahel ñu ngi configuré wu di dajale ko di créer benn bloc donc CEDEAO taxaw na le tey kon jàpp nañ ni aujourd'hui am na un leadership bu nga xamante ni am na ku ko war a incarner donc euh, un engagement bu nga xam am na ku ko war a jël pour véritablement mën a consolider waat li nga xam ne ni que mooy la fi nekkoon mm-hmm. mooy jéem fexe ba la nga xamee ni que mooy le monde Sahel ñëwaat ci biir CEDEAO tout en proposant également des réformes tellement approfondies ci la nga xame ni que noonu la CEDEAO tëddee parce que tey lii nga xam ne dafa am ci sous-région ba la mu tegtal ak la mu wane mooy am na véritablement un manque de confiance entre les peuples africains ak la nga xam ni que mooy organe bi nga xamante ni mooy CEDEAO donc nag liggéey boobu jàpp naa ni dans un premier temps moom la nekkoon di def ci sous bi dem na France ci ndaje muñ ko invité woon te la ñu wax fësal ko mooy bu amee benn marge dina ci daje ak euh, président Emmanuel Macron daal di waxtaan sur des questions très importantes parce que tey quoi que l'on puisse dire aussi yaa a un ru y a euh, une rupture de confiance entre ñi nga xam ni que mooy sénégale yi ak la France parce que gis nañ ni à un moment donné les relations étaient tellement tendues le premier ministre Ousmane Sonko keroog ba mu génnee di def déclaration ànd ak euh, Mélenchon mm. entre ak ak Mélenchon gis ngeen la mu yëkkati wax ko ca euh, Emmanuel Macron ca France mm. parce que nee na moment bi nga xamante ni ñoom ca lañ gënoon a nekk ci ay jafe-jafe mm. boobu dafa mel ni sax Macron daf leen doon ñaawal en réalité ci la doon gën di recevoir président Macky Sall mel na ku koy encourager ak di ko jàppale te gis nañ ni aussi si moment yooyu tout la communauté pratiquement internationale daan nañ kon condamné jëf ji daan am fii Sénégal mais nga gis ci France daal di koy condamné lu doon jafe la donc loolu nag demoon na ba véritablement relation yi xawoon na ñagas maintenant bu fa président Bassirou Diomaye Faye de demee aussi jàpp naa ni il y a des questions tellement importantes yu nga xamante ni euh, war nañ ko fa mën a waxtaanee des surtout des enjeux économiques parce que France quoi que l'on puisse aussi la France est un partenaire mm-hmm. économique mm-hmm. bu Sénégal ci lu yàgg ci ay at bari na lu bëri loo xamante ni ci suñu la ñuy dundee ca mm-hmm. réewum France bële fa lay jógee relation France Sénégal kooku kenn du ko nettali kenn boo xoolee réew la moo xamante ni également moom moo ñu jox suñu indépendance mm-hmm. jaar ak ñun fu bëree bëri mm-hmm. bañ na ko ba même nañuy doxalee ci wàllum administration ba mm-hmm. système juridique bi nga xam ne moom lañu yor pratiquement France moom ci lañ ko inspiré woo kon jàpp naa ni tey la ñu gën a mën a waxtaanee en tant que président bu nga xamante ni aussi dafa jàpp ni aujourd'hui dañu war a nekk un un un pays euh, indépendant par rapport ak France tey boo xoolee sénégalais yi nekk France bari nañ ay jafe-jafe yoo xamante ni dañ ko fay dund. Mm-hmm. ci wàllum bundu xatal ci wàllum euh, euh, ñàkk jàmm des fois si yenn Sénégalais yi donc jàpp naa ni tey mission wu président Bassirou Diomaye Faye war na mën a bokk ci fexe ba Sénégalais yoo xamante ni ñu ngi ca bitim réew biir France googu mën fa am jàmm mën fa am ak dal mën fa di liggéey dans les règles de l'art comme cette français yi nga xamante ni aujourd'hui ñu ngi fii te kenn bu ndox bu ndoxatalu leen mm-hmm. beneen bi mooy. des enjeux économiques naka la ñu war a mën a fexe ba perfectionner aujourd'hui suñu ay relations économiques xoolaat si le faut s'il est nécessaire aussi la ñu boole ak moom ci ay wàllum contrat ci ay wàllum convention ci ay traité ñu xool ba Sénégal ak France naka lañ mën a conclure un partenariat véritablement équilibré un partenariat gagnant-gagnant parce que ñun ñëpp jàpp nañu ni tey la ñu boole ak France la ci France di gagné. Mm. mooy ëpp fuuf ñun lañ ciy gagné. boo xoolee suñu ressources naturelles yi bari nañ luñ ci exploité loo xamante ni en retour population sénégalaise bi gisu ci seen bopp. présence base base militaire yi biir fii Sénégal aussi bari na ay sénégalais yoo xamante ni véritablement xamuñu. effectivement lan mooy seen njëriñ lan mooy seen njëriñ ci ci ci ci ci sous région bi mm-hmm. loolu loolu c'est des questionnements yu nga xamante ni bari na ay sénégalais mm-hmm. yoo xamante ni xamuñu dara lu ci ci lu leer kon jàpp naa ne aujourd'hui euh, suñu relation ak France parce que yàgg naa souvent di ko wax amul na réew ci àdduna mu mën a taxaw revendiquer ni moom réew mu moom boppam la réew mu mm-hmm. indépendant sur le plan économique nous sommes des pays interdépendants France dafay soxla Sénégal Sénégal en retour dafay soxla France États-Unis mii nga xam jàpp nañ ni c'est la grande puissance ek way moom sax dafay soxla dafay soxla ñeneen mhm. parce que tey ñoom ñu ngi nii États-Unis ne woon ba ala kulli leen du ñu mës a jox loxo koo xamante ni dictateur la mhm. ñoom du ñu jaaroo taal ak dictateur loolu lañ waxoon mhm. mais tey àdduna dem na ba wan leen nii te propos ya ngeen doon tenir mënatul dem. Mm-hmm. parce que réew yi ay réew yu soxlaan tante la. Mm-hmm. tey ñu ngi nii soxla benn Salman bële. bu Arabie bu Arabie Saoudite te Ben Salman ñëpp xam nañu c'est un dictateur. kon nga xam ni aujourd'hui am na théorie yoo xamante ni jarul di théorie France dégage nangam nangam c'est-à-dire le plus important pour man. Mm. c'est de voir comment améliorer notre relation notre partenariat en euh, avec la France mu nekk un partenariat comme je l'ai dit tantôt. Mm-hmm. un partenariat. gagnant gagnant réew mi di ci gis seen bopp Sénégal di ci gis seen bopp te président Bassirou Diomaye Faye Sénégalais yu bëree bëri pour la majorité. Mhm. lu tax ñu tabb ko tabb leen itam loolu daf ci bokk. bokk na loolu daf ci bokk kon nag loolu ça doit être un engagement. Mhm. bëgguñu am également un président comme président yi fi mhm. yoo xam ne dañuy nekk sous la volonté de la France lu ñu wax ñu ni waaw lu ñu wax ñu lu ñu ànd. ca la c'est depuis sous Senghor. c'est loolu nag dafa war a am une rupture nañu waxtaan naat relation yi. jàpp naa ne loolu bu ñu ko defee. suñu relation avec la France mën na gën a ñooy surtout nag les sénégalais établissant en France ak fii gis nga ñun bu ñu soxlaa visa pour dem na muy jafee si ñun mm. des fois étudiants yi nekk campus France di demander ay visa pour dem pour la majorité ñoom ñëpp duñ leen may duñ leen may euh, euh, pour ñu dem mm. ba pare dañuy perte seen xaalis xam nga loolu yëpp tamit aussi lu ñu war a woon a mën a waxtaane la mhm. bu fekkee mënuñu leen may pour ñu dem jàngi à l'étranger mais bu ñu lekk seen xaalis nañ leen ko delloowaat loolu yëpp c'est des choses nga xam ne pour man tey président Bassirou Diomaye Faye war na ko mën a teg sur la table mhm. ñu discuter ci ñu mën ci trouver ay ay ay solution mhm. Omar mën nga jàngatee visite au président France waaw ouais, bi moom euh, comme je l'ai dit hier maa ngi koy rafetlu euh, parce que bon euh, Sénégal ak France comme ni ñu ko waxee comme ni ko Serigne waxee ay partenaire lañ donc euh, mënuñoo ñàkk jëflante mhm. donte jëflante boobu dafa war a doon ci ay base yu leer dañu war a on doit partir sur de nouvelles bases léegi nag partie sur de nouvelles bases ça dire que tey jii war nañ waxtaanee affaire yu bëri franc CFA bi ñoo ngi koy wax war nañ ko xool ndax euh, monnaie des colonies françaises d'Afrique mhm. loolu c'est dépassé donc euh, war nañu xoolaat ay ay mbir yu bëri lu ci jëmee ci franc CFA bi surtout ak suñu devise yi nga xam ne dañ koy jël di ko yóbbu foofu ñuy jox ay franc CFA xaalis boo xam ne nii fii la yem ci ci biir Afrique donc bëri na ay ay ay ay ay ay mbir yoo xam ne war nañ ko waxtaanee seulement nag benn problème moo am mooy actuellement ki nga xam ne moom mooy Emmanuel Macron il n'est plus maître chez soi euh, parce que il n'est plus maître chez lui parce que mënatul amatul benn benn doole bi en France parce que gis nga ni yàggul dara amoon na ay élections européennes en France boo xoolee Front National moom moo ko gagné te Front National c'est l'extrême droite en France son son les ultra conservateurs donc euh, te extrême droite xam nañu waaw ñoom Marine Le Pen te xam nañ ni extrême droite moom bu ñu ko waxee euh, bu demee ba ba ba ba commencé di jiite France euh, euh, mooy ñi nga xam ne ñooy africains yi waaw waaw ñi bëri ñii ñibbisi dinañ bëri projet yu bëri yi nga xam ne nii français yi ñoo ngi ko doon financé ah, ci dëkk bi loolu tamit sa ça risque d'être remis en question waaw dina jaxasoo lu bëree bari sax léegi nag bon peut-être sax Emmanuel Macron moom visite bi peut-être di dina ci mën a profité waale pour rassurer le les Français pour montrer leen wan leen ni peut-être man je suis l'homme de la situation parce que la France avec euh, moom peut-être dina am plus d'ouverture alors que Front National actuellement gis nañ ni moo ngi monter en puissance euh, gis nañ yeneen parti d'extrême droite yi parti ex Éric Zemmour ak Front National boo leen boolee seen li ñu am rek ci élection yi yi waa euh, lu leen manqué pour ñu am majorité bariwul donc euh, visite bi ñoo ngi koy rafet lu mais peut-être moo ngi arrivé si benn contexte boo xam ne ki nga xam ne mooy jiite actuellement France mm. moom il n'est plus maître de son destin mm-hmm. d'ailleurs sax boo xoolee moom euh, dafa décider ne léegi damay dissoudre assemblée nationale dissoudre na assemblée nationale mm-hmm. yàggul dara war na am ay élection ay ay ay ay kii ay élection législative anticipée 30 juin mm-hmm. donc y a y de permettre mais nag bon euh, visite bi moom ñoo ngi koy rafetlu euh, ñoo ngi koy rafetlu parce que euh, président de la République du Sénégal moom ba mu ba mu toogee ba léegi demaguloon France te demu fa sax pour visite officielle moom dafa demoon pour leneen leneen moo ko fa yóbbu mu jaaraale noonu pour waaw mu loolooy wane ni peut-être moom bu naree dem bay rencontre Emmanuel Macron mu doon loo xam ne visite officielle Macron moo ko war a tax a jóg peut-être loolu day doon loo xam ne ni lu ko Sénégal tamit. quoi est waaw waaw bon ils vont c'était programmé aussi. waaw waaw non c'était c'était c'était programmé quand même mm. c'était c'était programmé quand mais euh, ba léegi bokkul ak euh, boo xoolee euh, démb ñoo ngi ci doon wax gis nga tuitu France 24 bi gis nga nu ko waa waa. waa RTS tonté ma loolee wan ni en fait l' ambiance est un peu tendue euh, am diggante France ak Sénégal parce que euh, suñu ancien président yi bu ñu toogoon France la ñuy dem Mm-hmm. seen premier voyage nga dem France seeti français ak yooyu mais mm-hmm. ñun léegi diplomatie de de voisinage la ñuy la doxal euh, présent ba mu toogee dëkk waaw waaw sous région bi la mm-hmm. xool dëkk yu ko jege donc ça veut dire que tey ji diggante France ak Sénégal bëri na maanaam euh, nu mu neexee woon démb neexeewu ko tey te tamit euh, le nouveau régime ils ont ils ont raison am na foo xam ne ni wax nañ fa dëgg parce que tey ji mënoo nekk ci opposition bi ñu lay xatal di la sonal France jamono jooju jàppale Macky Sall teg ko loxo te ba léegi yaa ngi gis ni Macky Sall euh, actuellement moom mooy défendre intérêt français yi un peu partout à travers le monde à travers 4P waaw ah. ah, kon euh, actuellement euh, ñi nga xam ne ñoo jiite ñoo ŋànk réew mi ñoom tamit am nañ droit peut-être tey jii am benn réticence vis-à-vis de la France léegi nag France ñoom ñoo mën a wane ay gage wane loo xam ne dina tax tey jii Diomaye xelam dal Sonko xelam dal ba pare euh, euh, visite bi man jàpp naa ni Euh, war nañ ci profité wax waxtaanaale lu bëri surtout ay partenariat yoo xam ne noué nañ ko ak ay ak France euh, ci côté surtout terre bi terre baa ngi nii contrat de concession terre kan moo la mën a wax nu mu demee kenn mënu la wax ba léegi contrat concession terre bi nii la demee capital bi seen terre bu ñu créer parce que fii boo fi ñëwee di créer benn structure di nga créer benn société boo xam ne nii état bi ak euh, privé bi dañuy dañuy booloo doon benn mais SENTER actuellement kenn mënu la wax ni TER bi ñoo ngi naan six cent milliards la ñoo ngi naan mille milliards la mais TER bi tey capital bi lan la concession bu fekkee concession dafa am terre bi ñun kañ lañ koy moom carrément xaalis bi bu fekkee am nañ cent milliards cent milliards yooyu nan lañ koy répartir donc euh, man autorités yi maa ngi leen di xaar ci dossier yooyu dossier yoo xam ne nii parce que terre Alstom moom moo ko fi indi Alstom doon société boo xam ne nii ñëpp xam nañ ko à travers le monde peut-être ci affaire u defar ay train wak yooyu mu demoon waaw mu demoon ba bay waaj a dee ñu ñu ñu ñu dekkil ko kon tey jii yaakaar naa ni euh, euh, président <laughs> Diomaye bu ñëwee tamit moom war nañu leeral ci ay mbir yu bëri ci suñu digganteeg France ci ay contrat yoo xam ne signé nañ ko ak français yi pour sénégalais yi si seen wàllu bopp xam effectivement contrat de concession bi lan la lan la ci Sénégal dépensé lan la ci bailleur de fonds yi dépensé kañ la ñuy moom suñu yëf wala est-ce que duñ ko mës a moom ainsi de suite y a de question yoo xam ne nii tey jii je pense que loolu war nañ ko leeral te peut-être à travers cette visite peut-être man gis naa ci benn lueur d'espoir boo xam ne nii les deux chefs d'État ñoom bu ñu waxtaanee jàpp naan dinañ déggoo si lu bari. dinañ déggoo si lu bari waaw euh, comme je pense que Serigne ak ah, nekk na bu ñu fàttali aussi du moom jomaay moo jug dem def visite mm-hmm. euh, peut-être dañ doon waxtaane mbirum vaccin mu profité aussi gisanteeg Emmanuel Macron bokkul ak koo xamante ni dafa jug sol dàllam comme ni mu ko doon defee dans la sous-région ak yeneen pays yi dem euh, Burkina Malek yeneen dëkk yi nga xamante ni jot na fa dem donc lii. benn mbir lañ doon waxtaanee mu profité si gisante seeg euh, Emmanuel Macron te euh, am na peut-être beneen aspect boo xamante ni euh, peut-être jëluñu ko en compte te bokk na ci mooy l'accoutrement souvent dañ daan gis sunu ancien chef d'État yi bu ñu daan dem France costume xoju dem gisanteeg ñoom mais moom boo ko gisee moom Diomaye mu ngi sol benn costume africain. tenue local wax euh, te loolu aussi dafa mel ni bokk na ci seen rupture bi ñuy woote mm-hmm. ndax gis nañ ni euh, ñoom muy moom di Sonko à chaque fois dañuy mel ni luy gën a euh, valoriser li nga xamante ni mooy sunu ay produits locaux te loolu lu am solo la donc dem na gisanteeg Macron sol un costume africain wane ni ko ñun du dañoo war a ñëw la mm-hmm. xoju sol costume et tout mën naa fi ñëw sol loo xamante peut-être ñun suñu dëkk la la fekk baax mais euh, pour ñëwaat ci li nga xamante ni mooy waxtaan man je pense que mbir yu bëri peut-être euh, waxtaane nañ ko te euh, d'après man info yi ma am nee nañu li nga xamante ni mooy base militaire française bi fi nekk seen limu soldats yi dina wàññeeku ci ay info yoo xamante ni man démb jot naa ko am nee nañu lim bi dina wàññeeku te loolu je pense c'est bon début mm-hmm. parce que démb maa ngi koy expliquer Sénégal newuñu ci guerre ñu ngi sant yàlla amul benn trouble bu fi am donc militaire français lu ñu fiy def te lan moo fi seen njariñ aussi xam nga boo fi booy nekk ci réew boo fa dekkee am na loo xamante ni mooy fay sa rôle comme ni ñu nekkoon woon au Mali nekkee woon ko peut-être euh, au Burkina et ba ñu jëlee leen fa réew mi yooyu noonu dañoo nekkoon ci ab crise ñu demoon fa pour jàppale les soldats yi nga xam ne ñoo fa nekk mais ñun Euh, wax dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla amuñu benn tension bi fi am même sax tension yi fi amoon gisuñu fi woon seen rôle des fois nag nga gis la ñu génn ay benn benn et tout mais gisuñu woon ñu nekkoon su le théâtre des opérations wàccoon et tout donc armée française lu muy def ci suñu réew est-ce que peut-être newuñu di ñu surveiller et on ne pas donc nag ah, euh, jot na ñu posé wu question boobu wax ni euh, soxlawuñu une base militaire française ci suñu dëkk mais aussi Oumar wax na lu am solo am na contrat yoo xamante ni signé nañ ko ak euh, la France contrat yooyu noonu jot na aussi ñu daal di koy renégocier revoir ko moom mu ngi wax terre bi bu ñu fàtte ni autoroute à bi mu ngi fii ak yeneen yeneen yoo xamante ni ay contrat yoo xamante ni Eiffage ay yeneen contrat yoo xamante ni l'ancien régime euh, moo ko paraphé woon ñi nga xamante ni ñoo fi ñëw tey ñoom nee nañu dañoo bëgg renégocier tous les contrats xëy na aussi ci seen coopération avec la France loolu dina ci bokk parce que nekkatuñu euh, ci période boo xamante ni France peut-être moo ñi naan ñu nii laa ngeen di doxalee wala nii ngeen di xoole et tout te euh, Sonko gis nañ ni mu attaqué woon ouvertement Emmanuel Macron waxoon ni dafa jàppale woon Macky Sall euh, ci répression bi nga xamante ni l'ancien régime doon naka def partem ak moom mi nga xamante ni moo doon le leader moom loolu la wax loolu la jàpp gis nañu peut-être démb Diomaye dem na gisanteeg Macron gis ni ko Macron ak accueillir parce que gis nañ mu ngi ko nuyoo ak ñaari loxo loolu aussi am na benn aspect boo xamante ni ñi jàng communication mën nañ ko daal di interpréter euh, bu doon jomaay moo ñëw nuyoo ko ñaari loxo et tout là mën nañ comprendre mais moom moo ñëw nuyoo ko ñaari loxo ak yéex ko chaleureusement signe de respect la mais aussi am na signification te aussi man je pense que Diomaye mu commencé am ñi nga xamante ni ñoo doon ses tracteur durant la campagne ana ñu fi doon wax naan woy man su Diomaye demee gisanteeg Macron wala gisanteeg Joe Biden tey Diomaye gisante na ak Macron et après lan la euh, voilà est-ce que Diomaye daf ñoo humilier au contraire il a tenu un discours responsable dafa commencé lii parce que euh, juste pour dire que non non non non la waaw da dem ba même bu dee tàmbali au début yenn couac parce que dañ doon wax durant la campagne. am nga la mu def Guinée tamit nañ mais Guinée xam nga dañu mais France xam nga ñëw wax ñu woon ni Diomaye bu demee. gisanteeg xaaral ma ñëw xaaral ma ñëw nga doon wax ni jomaa yi bu demee gisanteeg Joe Biden wala Macron loolu l'image du Sénégal démb Diomaye gisante naa ak Macron et après est-ce que Diomaye nous a humilié au contraire Diomaye il a tenu un discours responsable devant des sommités ñoo xamante ni ay yeneen anciens chef d'État et de gouvernement ñoo fa nekk te ñëpp ñoo applaudir son discours ñenn ñi sax ñu ngi commencé naan way Diomaye euh, mën na yootu euh, li nga xamante ni mooy présidence Union africaine et tout parce que discours responsable la tenu un discours souverainiste juste pour dire que président de la République du way c'est la personne moo moo moo moo moo moom moo am importance mais ni ngay doxalee ak peut-être posture bi ngay adopté donc tey Jomaay am na raison ci ñi nga xamante ni ñoo doon tiire ci moom way Jomaay bu génnee euh, gisanteeg diw ak diw ak diw loolu amul aucune signification au contraire euh, man je pense que même euh, dafa gën a yëkkati l'image du Sénégal te aussi non seulement il est jeune il a tenu un discours responsable devant une assemblée te loolu dañ koy saluer ëllëg tamit bu demee gis ak Joe Biden je pense que ce sera la même chose Poutino euh, Kim Jong-un yëpp ci yam donc. Euh, man je pense que <laughs> Kim Jong-un bu Corée du Nord. c'est ça quoi parce que man je pense que l'essentiel mooy li ñuy waxtaanee Sénégal moom boppam. ñu revoir les contrats loolu moo am solo. mais pas ay woy euh, Diomaye gisanteeg Macron Joe Biden amul benn sens. waaw loolu moo tax ma ne ko moo tax ma ne ko am na yoo xamante xam nga tey